c'est la référence. Euh, kaddu gi di àddoo fii ci euh, Medina Baye ngeen ñuy teewloo ci ay gox yu euh, wuute te fasantikoo mbokk yi salaamaaleykum dalee nag jàmm ci xibaar yi bu ngeen taaxirloo rek ma jukki leen li ci gën a fës li gën a fës ci xibaar yi nag bokk na ca jaaree ko ci loxol xalif bu tedd bi ci Medina Baye Baye Ciss nag jot na décret bi koy nommé le responsable des grands travaux de Medina Baye lu ni mel nag ni ki démb la ko doon amal mu nekkoon. itam ak ak buntu ngir naka xalif bi daal di lancé waale projet yi nga xamee ne am na côté mu soxal pays bi loolee itam daañ ca dikk ci biir xibaar yi association bi nga xamee ne moo attaqué Kaolack waaye nekkee ci Amérique te ñu gën koo xam ci aka ñoom nag ñoo doon amal rek ñetti fanu consultation gratuite yoo xamee ne ni ki tey ji nag la ñu koy jeexal lu ni mel nag lay jubluwaay bi mooy rek jegeel askan wi paj mu ànd ak qualité waaye nag lépp mi ngi anto Euh, ci ndimbal ak njàppandalu euh, municipalité bu Kaolack bi loole dañ ca dégg Alioune euh, Badara Diop niki tey jii nag ci samedi ji daañu amal rek ca maison d'arrêt et de correction bu Kaolack bi ab journée culturelle boo xamee ne ña ngi ko jagleel détenu ya loolee nag lay solo si kon mooy may leen ñu daal di dundalaat nak seen i ay xol ci wàllu xumbaay ak mbumbaay naka noonu itam kenn ku nekk ca ñoom daal di wane nag mëninam ca métier ma nga xamee ne ña ngi ko ko doon jàngal boobaak léegi xam ci wàllu ñaw wàllu uude ba ci wàllu euh, menuiserie loolee itam daañu ca ànd ak reportage euh, bu Cheikh Tidiane euh, Diagne bu li lépp yembee mbokk yi daañu ca teg xabaar yi biti réew tàggat yaram ak li ci yéeni yi mu yembook li gën a fës ci ponk yi nes gis ñu indi ci fampance le journal Ngoné Ndiaye Reine Euh, ci keddu gi euh, feggoo ci ak Serigne euh, Moussa kan ci xarale gi kaddu googee nag di àddoo fii ci studio Alioune Momar Lo xibaar yi nag dañu koy doore ak nañu leen ko junjee ci ndimbal ak njàppandalu municipalité bu Kaolack bi association bi nga xamee ne moo di ACCA ñoom nag ña nga doon amal rek ñetti fanu consultation gratuite yoo xamee ne ni ki tey ji lay jeex bëccëg yooyee nag ak jubluwaay bi dañu koy yaatal ak Alioune Badara Diop. kuréel yi nga xamante ñu yeewu foofu ci réew bu Amérique si njàppandalu mairie bu Kaolack Ndangaan ñoom ñi lee amal nañu ñetti fan yoo xamante ni dañ ko def consultation gratuite cœur de ville bu Kaolack nag moo dalaloon bi le mbir Ousseynou Thiam bu kuréel gii di aka ñëwaat na ci solos bis bile monsieur Ousmane fay bon yor ONG bu mag a mag a mag depuis New York moo fi indi ay médecins yoo xam ne dañoo jógee ba New York ñëw di def fi consultation gratuite femmes yi nekk en état vraiment boobu ci suba léegi ñu ngi liggéey solo andi nañ fii aussi ay cadeau yoo xam ne ñu ngi leen koy jox di leen consulter di leen ko may non consultation yi bëri am na ci ñoo xam ne sax gis naa leen ay problème tànk lañ am yuy métti aussi ñëw na ñu ngi leen di consulter jigéen ñi nekk en état ñu ngi leen di xool xool boo xam ne bu am solo la ba pare ku ciy demit dinañ yëkkati benn cadeau offrir la ko xam nga loolu it aussi yombul Ndiaye Mbaw Tall moom milee mooy première adjointe au bi ni mel teg ci di grâce à l'association des Kaolackois d'Amérique ñu leen di woowee AK ñoom vraiment ñoom ñoo nekk en relation ak américains yi comme ñoom tamit dafa am partenariat bu ñu commencé bëgg ko développer ak mairie de Kaolack commune de Kaolack puis monsieur le maire ni mu amee ittee ci Kaolackois yëpp fépp fu ñu mën a nekk si àddina. askan bi nag bari woon na lool ñu ñëwoon ngir kat saytu seen i wér yaram ñoom ñëlee contentement kese la ñu amee ci li li mel. ah xanaa def nañ def jëf ju baax kañ bii mooy fois ñu koy def temps yi Covid nga ànd ak ñoom ñu def délégation dem joxe li ñuy joxe ñu ñëwaat encore indiwaat ay don waaw loolu bii moo ko ñetteel geste bu rafet la daal. loo koy ñaanal. ah macha allah rafetlu nañ ko bu baax a baax ñëw nañ laaj nañu lépp loo xamante ne daal suñu sage-femme yi ñu ñu koy laaj ba pare teg ci di ñu jox médicament yu baax jox ñu équipement pour suñuy doom bu ñu juddoo lu ñu leen di solal lu ñu leen di protéger lépp macha allah waaw kontaan nañ torop ci réew bu Amérique ñoom ñi leen nag pare nañu ngir jàppale askan bi nga xamante ñoo nekk fii ci région bu Kaolack Ndangaan ci wàllum wér-gu-yaram jaarale ko si njàppandalu mairie bu Kaolack Ndangaan ngir kat wàllum wér-gu-yaram loo xamante ni lu ñu jóg la ci dëkk Mbossé Kumba jigéen bi le euh, jaajëf Alioune euh, Badara Diop dañuy euh, desandi ba tey ca loolee kenn ci doomi Kaolack yi nga xamee ne mi ngi aju ca boobule association moom nag ma ngay xamle ne seen ko yéene ëpp na ndimbal loole te sax nag bëgg nañu koy wéyal lu mooy loolu itam moom nag Mor Mboup ma nga doon rafetlu ñëw partenaires yi waaye tam nag askan week ni ñu génnee wuyu si leen ay kàddoom ci micro Aline Badara Diop. am mbégte rek am mu fekk ma fi parce que daaw bi ñu ko defee fekkuma fi dama fekkoon voyagé rek mu fekk ma fi ci sama conseil kon nag am naa ci mbégte lool xam ne moom ma Mamadou Lamine Mbow li mu ci bëggoon lépp yàlla defal nañ ko nit ñi wuy si nañ sunu yaay mi ngi nii yaay xartaab ñuy am mbégte ci mu teewam lool macha allah ak waa kër gi yëpp yéen rajo Alfayda ak leen sant bu baax a baax di leen gërëm Alfayda moom samay nit rek a fa nekk waaw daaw am na ndaje buñ fa daje woon tombeeg màggal gi mu fekk ma Touba mun maa woon a ñëw bi moom président wooyee man ko mun maa ñëw mais ren nag heureusement mu fekk ma fi may am mbégte lool nag fekkee ka fekk ren fekk waat ko ay année yu bari ñëpp am moyen di ñëw di ko si suñu yéene ci Kaolack daal bari na amuñu lu dul Kaolack duñ fàtte Kaolack chaque ñu daje luñ am boole dimbali waa Kaolack dimbali suñu bopp parce que suñu famille ñëpp a ngi fii waaw loolu daal. thème bi wuyu si ci euh, ndaje tey bi. ah tey macha allah macha allah macha allah rajo bi euh, ndaje tey bi am na solo lool nit ñi ñëw nañ seet nañ jigéen ñi jox nañ leen ay garab vraiment ñëpp kontaan nañ daal incha allah incha allah moom bu ma yàlla yóbboo daañu gën a waxtaan bu baax a baax bu ñu defee reen benn déwén ñu jéem a def ñaar wala ñett ndimbal rek xam nga wér gi yaram ak ku am problème foofu dañ koo def ñun suñu biir sax ñun dañ ciy am njëriñ bokkoo diggante dañ lay dimbali soo amee bànneex ñu jàppale la boo amee naqar ñu jàppale la di gërëm ñëpp rek di sant sunu mbokki américains yi ñëw ñu ngi leen di welcome Sénégal xam ne lii am na solo trop Amérique moom nii lay dundee nun nag waa Afrique war nañ ci jàng lu bare tam parce que ñoom lu baax ak dimbali nit ñi rek doomu aadama moo leen tax a déplacé wu États-Unis ba fii pour sant nit ñi loolu am na solo lool ñi faj ñëpp ñu weex ñi gis bi yëpp États-Unis kay lañ bàyyi yi bokk euh, bi nag ñoom it tamit nag teewoon nañu ci euh, bëccëg yu ni mel rafetlu euh, taxawaayu kuréel gàkk ñi ñu àndal ci euh, liggéey bi Ndiaye Mbaw mi nga xamee ne moo ca doon addu ma nga doon xam leen ne consultation yooyu nag dina am suivi leneen itam loo xamee ne addu na ci mooy jigéen ñeek nañu leen cëralee ci ndimbal loole waaye itam seenu ko lëngoo ak association bu ni mel ay kàddoom ci micro Alioune Badara Diop. association de des Kaolackois d'Amérique contacté mairie bi ñun mairie bi tamit ñu am ci réactivité loolu donc ci temps bu gàtt ñu réussir indi fii ñi nga xam ne mooy corps médical américain bi yi nga xam ne dañuy liggéey ci benn association bu tudd partenaire World xam ne dañuy dem fépp ci monde bi continent yëpp pour euh, saytu li nga xam ne mooy population pays yi nga xam ne xëy na ñoo gën a am limite ci wàllu santé donc ñu ñëw fii tey pour def seen première mission parce que il faut que ñu xam ne lii ci cadre benn programme la du rek tey benn action bu ponctuelle dañu fii dellu si waat tey dañu ñëw parce que américain ñëpp xam nañ ko et loolu mooy yoon booy faj ay nit doo ñëw rek premier jour gis leen xamoo historique médical am xamoo lan moo nekk si moom nga ñëw rek ne da ngay commencer def ay soin yu diis ci moom dañuy njëkk a ñëw def identification bi nii jël seen historique médical def benn euh, consultation mais dañ fi war a dellu si au mois de mai juin incha allah fekk def nañu sélection ci dossiers yi ñëw ñi nga xam ne dafa laaj euh, ay chirurgie wala genre yooyu ñi ngi ciy liggéey euh, médical ñu ngi ciy liggéey ak district sanitaire bi bu ko defee ñu am autorisation yi nga xam ne dina leen permettre ñu mën a promulguer ay chirurgie incha allah donc yéen nag leen di gis ñu ngi liggéey avec beaucoup de rigueur euh, ñu ngi recevoir malades yi ñu ngi def seeni i consultation ñu ngi téye seen fiche de soins yeex yooyu donc ci loolu lañuy ñuy liggéeyee pour bu ñu demee assurer suivi bi leneen tamit loo xam ne dafa am solo ñu souligner ko mooy taamu biñ ci taamu jigéen ñi nga xam ne dañoo toll diggante parce que mission bi ñëw tey mission d'ordre la donc nga xam ne ci wérgu yaramu jigéen la laal donc ñi ngi ci ànd aussi ak beneen projet bu tudd ten thousand ten thousand project ñoom ñi ngi saytu instant bi jigéen ñi toll ci diggante mais li gën a am solo tamit ñi ngi leen di mayaale ay kiit yoo xam ne d'accouchement yoo xam ne bés bu ñu tolloyee ci mucc yal na leen ko yàlla may te kenn bañ a yëg kit yooyu la ñuy utiliser dañ koy jël rek yóbbu ko ci hôpital bi lépp lu ñu soxla ci wàllum accouchement li médecin bi di jëfandikoo mi ngi ci kit yooyu donc ñi ñu consulter ñëpp ñu nekk en ko en attendant beneen mission beex suite bi di ñëw ci am solo leneen itam wax naa leen ça rentre dans le cadre d'un programme ñu ngi ciy liggéey ak ñoom donc américains yi ak association des Kaolack waa d'Amérique bi ak commune de Kaolack parce que dañuy indi benn conteneur 40 pieds def si ay matériel mu nekkoon ay kaddu euh, Ndiaye Mbow euh, Tall euh, première adjointe au maire bu commune bu Kaolack bi lii itam nag boo ko la ma leen junjoon bu weesoo nag consultation it wàllu tàggat yaram naka noonu itam exposition ba nga xamee ne bëgg nañu ko fay amal euh, mag bu Kaolack bi maanaam maison euh, d'arrêt et de correction bi nga xamee ne mu ngi fii ci euh, diwaan bi ni ki tey jii nag daañu fa amal ab journée culturelle boo xamee ne ña nga ko jagleel nag ñii di détenu ya ngir nag waxtaane bëccëg boobu ak la mu a lambo waaye itam nag wàllu wàccaay wi tax na rajo Alfayda jël initiative dem fa seeti ji leen Cheikh Tidiane Diagne kaso bi nekk yéene amal ay bëccëgu aada jëmale ko ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu fa denc lu ni mel war a am ni ki tey gile ki samedi ji directeuru maison d'arrêt et correction bu kaw Kaolack di ñu dikkaatal ci lan mooy objectifu xew-xew bi ni mel. moo Modou Diaw. dañu bëgg comme li ñuy wax naan foog naa ne xumbute daggan lañ koy wax. l'utile à l'agréable. mooy que am na consultation gratuite bu les sages-femmes bu district bu Kasnack bëgg a may mbokki jigéen yi nekk fii te vraiment soxla nañ ko trop hommes yi am nañu foofu ay xew-xew ci animation am na ay talent yu fi nekk am na ay woykat am na ay ñuy taalif am na ñu mën a léeb de telle sorte que ñu bëgg en même temps que ñuy ñu égayewu mais surtout que ñi ñëw xam ne fii jàmm rek moo fi ne loolu rek lañ cultiver. ci biir mag bu Kaolack yaa ngi fay nemmeeku li nga xamante ne moom moo di ay liggéey moo xam tailleur menuisier métallique menuisier bois ak yu mel noonu lu ni mel ana lan lay tekki ñu laaj ko directeur mag bu Kaolack mu indi ki tontu lii. fi mu toll nii fii dafa nekk comme koñ loo fi bëgg daal ñu am nañ ko fi am nañu ay atelier boo bëggee ñaw lu ñaw lu boo bëggee soudé ay porte sax soudé mason sax bu ngeen ko bëggee am na fi. ak artistes ay cordonnier. wuude yi ñu li ñu fiy liggéey muy exposition bi exprimer seen talent mais aussi seen talent ci lépp am na ñoo xam ne couture bi nañ fi gis ay exposition xam na rob yoo xam ne wax dëgg wala wala ñëw boo bëgg wax dëgg yàlla mën nañ ko fee def daami naak lépp dafay am Pape Modou Diouf dikkaat na ci liggéey bi nga xamante ne def nañu ko ci biir kaso bile waaye tamit wax li ñu nar ci foire internationale bu Kaolack bi ñu war a amal la nee na nag liggéey yi nga xamante ne ñoom jàngal nañu ko prisonniers yi file dinañu ko exposé ca foire boobee édition 2023. dañuy bëgg a profité exposé waale ko en préparation ak foire internationale de Kaolack bi nga xam ne ñu ngi cooy kii loolu yëpp nag bu mënee am c'est parce que dañu am suñu avalu inspecteur mooy suñu autorité fii. mooy suñu chef suñu inspecteur régional bi mu tudd Moussa Seydi. match de football bi war a tàmbali 16h directeur bi ci boppam dina fa yëkkati kàddu képp koo xamante ne nag gañe nga ci ñaari équipe yi finaalu nee na dinañu ko neexal ci ab trophée boo xamante ne kilifa yi ñoo ko koy jébbal. niki tey. Euh, di ko euh, jaajëfal lu euh, bare bari moom a Cheikh Tidiane Diagne ci lu soxal nag liggéey ba nga xamee ne détenu yi ñu nga koy liggéey ca corps de métier ya ñu ne itam nag bëgg nañu ci rek ak gunge goo xamee ne dina tukkee ko ci ay partenaire su ko defee nag kenn ku nekk mën cay gis boppam te sax lu ni mel mooy solos exposition bi nga xamee ne bëgg nañu koy amal ca ba ngir nag a gën a am visibilité moom mi nga xamee ne moo di Pape Modou Diouf directeur ba moo ca doon. adduwaat ba tey ak Cheikh Tidiane Diagne. loolu mooy suñu sax euh, vision dañu bëggoon te tumb nekk waxuma la sax ñi fi formé wu de fii am na ñoo xam ne tey xamuñu woon sax luy liggéey te am na ñoo xam ne tey dem nañu tey ba xam ne ñàkk jëriñu rek moo la ci mën a génnee fii dafa nekk bërëb boo xam ne loo mënutoon boo ñëwee fii di nga ko jéem mais bu fekkee ne day fekk mu nekk sax li ñu bëgg mooy ñuy produire bay di ko yóbbu ci biti mais en sax que loo fi teg ne wala kii maa ngi koy wax tailleur bi barke démb chaque fois lu yi wala ku ñëw gis affaire sama lii wala sama lee wala ñi fi nekk parce que ñi fi nekk aussi da ngay am mbokk nga ne ko fële day ñaw wala mu ñëw gisal ko boppam n'est-ce pas en général loolu tax pour nga génnee sax wax dëgg yàlla day jafe mais ci loolu lañ bëgg parce que loolu foofu la importance su partenaires yi amee solo parce que dinañ la dimbale nga gën a am moyen pour gën cee investir dimbale waale ñu koy liggéey mais dimbalewaale aussi ñeneen parce que kaso bi luñ fi liggéey ci lu mel noonu dafa am loo xam ne ci bi lay dem loo xam ne ci détenu bi lay dem ko defee te du jëm kaso bi rek demaat na ci ñoom parce que activités yi ñuy organiser tey ci loolu lay jóge ak appui bien sûr comme ni ma ko waxee léegi inspecteur bi donc ci noonu la ñuy daal investir mais partenaires yi quand même liñ ci gën a soxla mooy partenaires yi gis xam ne réellement ñu ci jàppee parce que ça sera un partenaire gagnant gagnant ñun vraiment soxla wu ñu sarax léegi sax maye sax ku gàtt xel rek mooy demander sans pour autant ngay joxe donc partenaire yu mel noonu bu amee da ngay am na ci ñoo xam ne bon mais duñu bëgg mu gën a yokku ñu ñëw def commande ne lii lañ bëgg demoon nañ ba ci sax les tenues des ñu doon chercher gauche à droite pour kii mais comme niñ ko waxee loolu yëpp yëpp xëy na ren mën nañoo raw mais yooyu yëpp suñu xel mu ngi ci pour ñuy am ay commandes yu mag a mag a mag a mag n'est-ce pas parce que man sama tenue yi sol fii laa koy ñëwee. Euh, jaaree ko nag ci euh, waxtaan woowee mu doon amal ak Cheikh Tidiane euh, Diagne moom nag contrôleur ba dikkaat na rek doon leeral itam ak réew bi nga xamee ne ñoom détenu ya boobaak léegi nag ñoo ngi ko fa doon amal foofee lu ni mel ni ko sababoon waaye itam nag tànki jàmm yi nga xamee ne procureur bu Kaolack bi dox na ko ci ba tax na sax ñu daal di teggandi réew boobee ca Abdou Diouf ba tey ak Cheikh Tidiane Diagne. effectivement dañu toog ba foog naa lundi bi nekkoon férié daal ñu am ñu annoncé wu ne dañuy grève de la fin parce que dañ fay yàgg maanaam pour daal ñaawlu seen longue détention préventive maanaam ni nekkin xaarandiku ñu atte leen te comme ni ma koy waxee rek loolu moom def nañ si suñu kéemtalaay kattan te avec vraiment foofu maa ngi profité di saluer collaboration magistrat yi ki nga xam ne wax dëgg yàlla luñ leen ci kii ñu ngi ñu ci xëy na sax am na foo xam ne ñun du suñu rôle ne sont pas aussi juges mais à chaque fois ils sont sensibles à la question à chaque fois que ñu déggante le procureur et l'autre jour quand euh, bi mu fi ñëwee ci sax la grève bi wax dëgg yàlla jeex takk mooy bi mu fi ñëwee mercredi wax na ak ñoom comprendre nañ ko fekk na nag irab bi inspecteur euh, régional bi ñëw na fi bu ñu nekkoon di waxtaan ak ñoom ci biir jeetaay boobu la ñëw ñëw expliquer leen que ne wax dëgg yàlla dossier ñu ngi def kéemtalaay kattanam pour que mais liggéey bee da ngay fekk ay dossiers ñu bëri lool te mënoo ñëw dossier bi door a ñëw ba nekkoon booba expliqué na leen que ne effectivement xam en tant que responsable parce que comme li may wax rek bu ñu yaakaar ne détenu yaa que des responsables nit ay père de famille lañu ay nit ñu responsable lañu ñu xam li ñu bëgg ñu xam lu leen war n'est-ce pas bu leen expliqué effectivement ils ont compris et arrêté. ñaata leen ñeent fukki nit la woon. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM Euh, ngeen di euh, wéy ba tey nag di fi euh, taataani ay xibaar yu wér te wóor projet yi nga xamee ne xalif bu tedd bi ci Medina Baye am na ko nag la ñu doon lancé ni ki démb ndaje ma itam ak ak buntu la woon ngir Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass joxaale itam Baye si sa décret bi nga xamee ne moo koy nommé le responsable des grands travaux de Medina Baye ca jotaay ba nag kaddu yi laf fa jibal ci micro Cheikh Tidiane Diagne. jógee fii ba Guinguinéo Médina te gis ma fi lu muy ay étage ak ay taaxi kaw moom rek laa fi gis suñ gisee Ambali Mbaye liggéey boobu commencé ci ay njabootam ci ay doomam kenn ñëwul defal ñu ko mais ay doom kese ñoo xalaat ne mën nañoo amal lii ñu teg ci seen tànk pour amal ko donc dañuy wax alhamdulilah rabbil alamin waaye yal na yàlla yokkul Cheikh Ibrahima kawe ak reer ak ñi àndoon ak moom yëpp di liggéey pour ñu àgg ci résultat bi résultat bu kawe la ndax ñun ñooy doomi ñooñu fi passé rek ñooy doomi démb ñu fi passé woon su fekkee ñoom daan nañ gént daan bëgg daan am danañ yar seen doom pour ñu àgg nag ci tabax état tabax dawla tabax lu nekk dëgg-dëgg ñu gis ne rek itam ba tey ne ñun ci kaw yoon wi nga xam ne ci la ñuy doon xaar pour ñu nekk ci yoonu dundal diine ñu ngi fi am na kenn werante wu ko dinaay wax ne intellectuel tubaab yi ñoo war a ñëw fi mu ne jàpp ci parce que fekkee jukki bi rek la ak dara ji alhamdulilah mokk na xam nañ ko mën nañ ko mën nañ ci jëflante ci biir mën nañ ci jëflante ci biti àdduna bi yëpp na ko nangu mu des nag yi nga xam ne yoon ci yeneen école yi am yeneen xam yoo xam ne itam dañ ko war a jëriñoo war a jëriñ donc ñu foog ñooñu ñoo jàpp ci ñun ñëpp ñu ànd liggéey bu boobaa mun nañoo liggéey loo xam ne dafay tolloog bàyyi ci xelaat dafay tolloog bàyyi ci bëgg-bëgg nii ay doomam lu dul tàmbali te du àgg ba ba tey mu ne ko amaguma lu ma tabaxee mu ne ko tàmbali boo tàmbaliwul doo àgg waaye boo tàmbalee rek di nga àgg incha allah tàmbali mbàyyi ngi nii te gis na tàmbaliwu na ci loxo yu dëgër tàmbali na ci xam-xam bu wér parce que yëpp ku na xam ne xam-xam moo fi jaar lu dul xam-xam mënut a def lu setee nii lu leeree nii lu kawee nii volonté moo fi jaar su fi volonté bu dug bu amutoon jot gi yëpp nga def ko ci lii bu amutoon volonté pour def ko du am ni ko bëggee mbëggeel itam mi ngi parce que bëgg naa sama bopp bëgg naa sama taarix mooy lii fu nit di àgg war naa fa mën a àgg maa ngi toog fii quelque fois damay bugg a jooy ndax bu ma fàttali ko démb ak mag ñooña gis seen wax yëpp dara sànkuwu ci yëpp ñu ngi koy gis muy dëggul ci ay doo seeni doom ñooy toog di xalaate nii liggéey liggéey bu kawe bi mën a teg parce que loolu rek moo ci tegu. Euh, gannaaw nag waxtaan woowee mu lay taayale ay kàddu yu soññee kii ak ñaax moom nag alxalif euh, joxoñaat na fa rek bàyyi siis nib modèle ñeel ndaw ñi gannaaw gi loolee itam ñaanal na ko moom ak équipe bi nga xamee ne ñoo nar a àndu ci euh, liggéey bi te mu soxal projet yi ci Medina Baye ay kàddoom mbette yaa ko Cheikh Tidiane Diagne. donc ñu gi ñaan bàyyi siis ak ñi koy jàppale ñëpp. yal na yàlla yëkkati. amiin na ñu yàlla yëkkati. amiin amiin yal na ñu dolli yal na yàlla taxaw dëgg la ñun dañuy liggéey te boolewuñ ci publicité quelquefois dañuy am ci yoo xam ne itam publicité daf ci war a bokk pour ñu xam ndax yaa ngi avancé wala avancé wala ndax yaa ngi dem wala dem wala dem bon koy wone nañ koy wax ci rajo parce que lii ku ne xam na ne développement la développement nit la hmm? parce que lu kawe loolu laa bëgg bëgg naa marché bëgg naa hôpital bëgg naa juma bëgg naa tali bëgg naa kër yu baax yu dëppoog nit ñi bëgg naa ay gan yi ñëw ci man bu ñëwee fekk fi loo xam ne jar nañoo gan a si loolu yëpp bëgg nañ ko am mooy développement loolu mooy nit te yéen a ngi koy def ak noppi boolewu leen ko benn yëngatu boolewu teg benn feeñal donc ñuy wax développement développé si réew dëgg am na nit ñoo xam ne ñu ngi développé seen réew te àndut ak coow ñi ngi def nit ñaa ngi gis bàyyi siis ci la bokk yàlla yokk lu dëgër ak man-man loo ko rek yàlla na ko jàpp indi ko ak ñi leen di dimbale yéen ñëpp ñu ngi xaar itam ci génération bi toog ñu xool ne modèle a ngi nii pour ñoom ñoom mu da dañoo bëgg a tabax bëgguñu fee nekk dig naa yoo ko xuloo ko xëccanteek ak yooyu passé nañ ko mm-hmm. dañoo bëgg a demaat beneen pas boo xam ne mooy dañuy defar ndax loolu la bàyyi bëggoon loolu suñuy bàyyi ya àndoon ak bàyyi yëpp loolu lañ bëggoon moo leen dajale yàlla leen dajale ci loolu te bu ñu ko deful ci biir réew mi itam def nañ ko ci biti réew bi ngay tàmbali sa fële mos naa la wax ne <laughs> yàlla na pare ma fekkee ko ndax ñoom bokk ci ñu koy sanc alhamdulilah pare na <laughs> bokk naa ci ñu koy sanc maa ngi yaakaar itam bi itam incha allah balaa yàgg ñu ànd man ak yow ak ñëpp ñu dem sanc ko yal nañu yàlla defal na yàlla taxaw lu nekk ci lu baax jëm si nëri na mun nañ koo xaar ci taalibe Baay yëpp alhamdulilah sant yàlla yal na yàlla nangu liggéey bii yal na yàlla yëkkati ko ci barke Cheikh Ibrahima mi nga xam ne moo tax nga di ko def yal na ci Cheikh Ibrahima barkeem ànd ci ci commencement bi ba ca fin mu nekkoon ay kaddu yi alxalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Ibrahima Niass am ci Baye Ciss moom mi nga xamee ne moom la ñu dénk liggéey boobee nag junjoon naa leen ko euh, gannaaw bi mu jotee euh, décret bi ko koy euh, nommé daal dina koy rafetlu jaare ci itam doon dikkaat ci grand chantier yi nga xamee ne bëgg nañu koy sumb ci pays bi daar daar Baye Ciss ba muy tàmbali waxtaanam dikkaat na ci solo si jotaay boobee ci micro Cheikh Tidiane Diagne. tey xalif bi daf ma owoon gannaaw bu mu déclaré woon ci gàmmu gi ne daf ma bëgg dënk lépp loo xam ne nii grand travaux Medina la Medina Baye am nañ projet yoo xam ne nii romb na Medina Baye ca Dakar ak ci yeneen dëkk ko seeg feneen ak feneen mais loolu yëpp la ñuy dajale ne man lañ ko dénk donc tey ñu ñëwoon gannaaw bu mu waxee loolu ci gàmm gi ma liggéey ci tuuti ci projet yi ñëw tey nag présenté ko ko mu tombeek aussi mu ma doon jox décret bi lettre bi ma nommé comme responsable des grands travaux ensuite ñu présenté ko projet yi nga xam ne yaakaar nañ ne baax na pour Medina Baye et que day tax Medina Baye soppeeku soppeeku mu nekk dëkk bu bees donc ñu présenté ko projet yi mooy hôpital bu bees de niveau 4 mooy université bu bees boo xam ne nii day jokkook université yu mag yi nekk ci àddina mooy comme ay Azhar ak yooyu ñu defar fi marché bu bees boo xam ne nii d'envergure internationale la boo xam ne nii day ànd ak parking boo xam ne ñiy gàmm su jóge ay Nigéria par bus et yooyu suñu ñëwee fa la ñuy taxaw pour désengorger un peu Médina Baye ci période de gàmm yeeg yooyu ak route yi tali yi yooyu xamante tey image à l'appui yi ñu ci jot a liggéey pour wan ko ne ko infrastructure yii lañ fi bëgg a donc très bientôt ñu commencé liggéeyu esplanade fi ñuy gàmmoo ndax xam ngeen ne à partir de année prochaine je pense pendant les cinq années qui suivent yëpp gàmm ci biir nawet lay nekk kon nag bu war a commencé jël suñ matuwaay ba nga xam ne nii tamit su tawee tax dañ mën a gàmm donc loolu moo tax ñu war a mën a commencé bu njëkk boobu pour que fii ak gàmm déwén bu soobee yàlla ñu mën a war a a présenter euh, euh, a def ba daal di koy euh, financé euh, lu ni mel nag bu dee ne ab laaj la euh, jàpp leen ne jaaxalul benn yoon Baye Ciss mi nga xamee ne foog na ne mbir mi nag warta mën a jafe ndax te itam mënees na koy wutee ci taalibe yi gannaaw gunge goo xamee ne état bi nam na leen koy gunge ci projet yu ni mel ci projet yooyee ba tey mu bokk ca nag fexe ba Medina Baye moom boppam ci wàllu ndox Baye Ciss ba tey ak Cheikh Tidiane Diagne ci wàllu ndox bi xam ngeen ne Medina ne dañuy dem xëcci Lac de Guiers pour indi ko kon ku nekk da war a jël say matuwaay mooy que Medina Baye su gàmmu jotee dañuy manqué ndox te pourtant soo yéegee ci kaw étage léegi nga gis ndox bu taafale donc ndox yooyu dañ indi ay experts ñu ne ñu buu bi dañ koy traité suñ paree ci buu bi sax day mun a nekk engrais pour génn ndox bi plus ndox bi ñuy accueillir pendant la saison des pluies mu am benn bassin de rétention buy denc ndox bi ndox boobu ñu koy potabiliser dégg di ko def ci ay château d'eau mu mun di alimenter Medina Baye ba nga xam ne Medina Baye day am am en eau donc loolu mi ngi ci projet yi koppar gi ak ñan ñooy financer projet waaw pour ñun xaalis bi amul solo ndaxte li ma la wax gouvernement wu Baye Niass dafa yaatu waaye gouvernement wu président la république aussi mi ngi fi boo xam ne nii du ñu seetaan du ñu bàyyi parce que président ci boppam jox na ma accord am ne projet Médina yëpp dina ko accompagner kon nag su boobaa amuñ ci siiki saaka ne d'abord mooy mooy suñu premier contributeur moom ak gouvernement donc koo xam ne nii moom si religieux yi daf ci yàgg taxaw yàgg leen jàppale yàgg leen dimbale kon nag su fekkee ñu ngi def lu toll nii xam naa ne moo ciy jiitu gis moom mooy xam nga ne fii ba Nigéria ba Ghana ba États-Unis ba Amérique fu nekk suñ ko lancé taalibe Baay duñ des gannaaw waaw kon nag li am ci yeneen confréries yeeg yooyu rek moo fi am donc pour financement beeg yooyu maa fi muskila yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM Euh, su ko euh, defee nag ñu daal di euh, wéy ba tey ci xibaar yi daal di àddu nag ci wàllu politique jigéen ñi nga xamee ne ñoo ànd ak Fatou Niang Bour ci ginnaaw Mouhamed Ndiaye Rahma ñoom nag jigéen ñoo ñooñee jamono ji ñu nga yëngatu rek ci lu soxal animation parti bi naka noonu itam daal di soobu nag ci njaayum karti yi lu ëpp nag juróom benn fukk ci ay présidente yu jigéen lañu ñu dajale woon rek ngir itam ñu daal di waxtaanee fànn woowee naka noonu itam jaare ko ca jotaay ba nag nag wax nañu rek ne bëgg nañu nag njiitu réew mi euh, gestu leen te bàyyi leen xel euh, seeni kàddu ñoom jigéen ña Fatou Niang Bour la ñu cay teewlu. waaw ñun nag li am nañ habitude le cinq de chaque mois dañuy dajaloo gaynde yi faj ñag buur gi mu les ñun dañuy dajaloo di natt di teggi di defaale seen plan d'action moo nar a di def seen activité yoo xam ne moom la ñu def ajaratu nday ñang ka ba tookee ngi nii presque nous sommes 62 présidente et quelques tey jii ñu dajaloo tey président Mouhamadou Ndiaye ma daf ñoo jox 60 secteurs kenn ku ci nekk ñu jox ko sabat ñu remplir ko ñëpp àdduna ba ñu gis ba xam ñun naka la ñuy liggéey ak suñ taxawaay ci ma lan la doon suñ muy tàng muy naaj muy sedd ñu ngi taxaw ci wetam su toogee xaaju guddi na wool ma tey ji présidente yi ñii gaynde yi taxaw ci sama ginnaaw kenn du leen ci njëkk su taxawee ne soxla naa nangam gaynde ci seen ginnaaw kenn duñ ñëkk vente des cartes bii ñuy def man leer na ma leer yàlla ne kenn duñ ci ëppale ñu bëgg nag dëgg yàlla mu xam ne ñuy liggéey lu mu doon lu man ndax kenn ku ci nekk sa wërsëg yàlla moo ko koy jox nit waaye doomi aadama di joxe gàmm mi ngi joxe ko ndomba tànk goo xam ne ci état war na cee mën jël ay nit waaye war naa mën am contact boo xam ne dana mayal ma diw wax ko président Macky Sall mi joxe ndomba tànk yi président Macky Sall gestu base raxma ndax base raxma ci kaw la kenn ëpp ko te pourtant heure bu di jël ay nitam lay jël di rese en rade les femmes de raxma te ko am na des responsables xam ne amuñu ko am ko ñun ñu taxaw di ko liggéey liggéey auprès de son excellence monsieur conseil Mouhamadou Ndiaye Rahma soo gisee jigéen ñëpp sabar ci ñoom mun Ndiaye Rahma lu am jox ko Kaolack Kaolack rek la bëgg Kaolack la gëm moo tax nit ñi taxaw sax di wax ay marché yooyu ñun dañoo dépassé yooyu ñun jigéenu ah. lu mu doon amuñu jot taxaw di tontanteeg ay jigéen ku bëgg a tontu na nga dem ci base euh, gannaaw nag euh, kaddu yi euh, Fat Niang Bour ma nga xamee ne moo leen jiite ñoom nag jigéen ña fa teewoon itam ña nga doon wane rek seen ci wàllum njaayum carte yooyee waaye itam nag nañuy sàccu rek jamono ji euh, mooy rek ñu daal di fay nag naar bi xoromam ndaxte nag nee nañu Mouhamed Ndiaye Rahma jaral na leen naam waaye ala foog itam mu dellu ak gestuwaat leen euh, seeni kàddu ci micro noir bi carte de membre yi nga xam ne ni moom la ñu jël di ko jàppalee Mohamed Ndiaye Rahma Mohamed Ndiaye Rahma jox ñu ko pour présidente bu ne juróom fukki carte d'identité yoo xam ne ni dafa ànd ak carte di wate léegi yooyu noonu la ñuy laaj ñun ñi nga xam ne ni ñooy gaynde yi nga xam ne ne ànd nañu fan ñang buur di musa des ginnaaw wala ñuy mujj kooku moom xalaatuñ ko keroog ba nga xamee ne jox nañ ñu ko ci ëllëg sa lañ tàmbale ñun suñ liggéey kenn ku ci nekk na yëkkati carneem ñu xam ne ñun Mohamed Ndiaye ñu Rahma ñun taxaw nañ pour ànd ak moom président Macky Sall ñu ngi nii euh, mooy Adja Fania koo xam ne nii ku nangoo liggéey ku ñemee ci terrain bi gayndeem yi nga xam ne ni ñoo ànd ak moom muy présidente de femmes yi ñeme ci terrain bi muy guddi muy bëccëg ñu ngi ci terrain bi di dox xooluñ ne Fania mii joxuñ ko poste ñu liggéey joxuñ ko poste waaye ñun tey lañ gën a engagé pour liggéeyal Mouhamed Ndiaye rax ma ànd ak Macky kon Mouhamed Ndiaye nañu geesu ñun présidente Fania yii ut fuñ ñu teg ut fu mu teg Fania mi pour ñu mun a sawar ci liggéey bi bee màkka yi lu ñëw daf ñuy romb place yi lu ñëw daf ñuy romb muy soonu nii fal nañ la takkal la ba tànk jox la di wax nag ne monsieur le ministre ñun suñu waxi démb mooy suñu waxi tey ñuy ngay def moo njaay raxma derrière ajaratu fàññang buur suñu liggéey pare nañ bu yàgg ci vente de carte ñu fexe bu jàppale suñu doom yi wax dëgg yàlla méritoo na ko ndax jàmbaar la te ñun ñii liggéey ak moom xam nañ ci dara fàññang bu ne suba suba suba suba ñu ràndi ko moo njaay raxma mu ngi xaar nag moo ju njaay ma oo ko mu oo ay président tam yëpp ñu taxaw Euh, bàkk boobee nag euh, miin ngeen ko muy seen euh, rubrique jàngandoo ci beneen anam gannaaw nag faat gu bëri gi nga xamee ni jamono ji lëmbe na réewam Sénégal lim bu takkoo takku ci askan wi nag la ñuy sàkkuwaat rek mooy ñu daal di delloo siwaat la ñu tuddee peine de mort peine de mort boobee nag bu ñu ko waree indiwaat yi tam ana ci yan yoon la war a jaar ngir nag daal di waxtaane ponk bu ni mel soxna nday Fatou Cissé dalal na ci El amaat Amath Thiam di ab juriste consultant bu njëkk bi kon ci waxtaan wi. boobaa président day laaj ndax est-ce que bëgg nañ peine de mort ñëwaat wala bëgguñ peine de mort ñëwaat ñu bëgg peine ñu bëggul peine de après ñu xool wii de noor yi peine moo ëpp. peine de mort ko dindi ci code pénal bu Sénégal Sénégal gi nga xam ne saa bu bakkan faatoo te yi nit takk ci ripp day bari ñuy sàkkuwaat euh, ak ñëwaatam. Euh. loi bu ñu légiféré dañu xool ay situation sociologique mais duñ xool waa tarixa bi li a bëgg wala waa ñi far ci diine bi li lañ bëgg wala ñi a bëgg wala wolof yi lañ gën a joolaa a a boobee nag ak ñëwaatam ci yan yoon la war a jaar waaw mën na am benn ñaar ba ñett yoon yoo xam ne mi yoon may na ko parce seen rubrique jàngandoo ci beneen anam nag tey ci samedi jilee juróom-ñaari fan ci weeru janvier di ci ànd ak El Hadji Amath xelam màcc ci wàllum yoon ñu mën koo tënk rek ci ne moom juriste consultant la spécialiste ci loolee ñu dippee contentieux des affaires moom ak yéen ñi nekk kon ci déglu gi ñu leen di wax dal leen ak jàmm. lépp lu yoon may rek yoon moo ko mën dindiwaat assemblée mooy voté loi assemblée mooy dindiwaat loi loolu la wax ci tubaab parallélisme des formes. loi bi dañ koy dindi en projet mi ngi jógee ci gouvernement bi moo ko jël soumettre ko assemblée nationale

de loi ñu waxtaan ci après yóbbu ko plénière di discuter ko woote ko mu jaar aussi fa jaaroon comme ni loi yooyu ñetti cas de bi nga xam ne mën nañ am référendum référendum mooy ñu bàyyi ñi askan wi ku nekk wax sa xalaat nga ñëw ñu voté oui wala non voilà ñetti condition daal gis naa ne war na mën nekk bu ñu indi fii la nag la ñu yemandeeg yéen ci seen rubrique euh, jàngandoo ci beneen anam euh. nit jox ko cëram du la xañ sa cër waaw boppam te kenn yëgu ko mu ni man wéruma maa xam ni wéruma te li ma dal us naa ko wax nit te mooy dama yëg ni dama añaan dama añaan waaw dama yëg ni ku d'accordul ak man ma saxat dama yëg ni lu nekk naqati na dama yëg ni lu baax lu waay am su jëli kon nag wéruma man nangu boppam ci nit ñi dem tëju ñeen fukki fan mook boroomam téere fiq yi mu am yépp wër ko bu ne mu jàngat ba ñeen fukki fan yi mat mu gis ni li ko dal fiq du ko faj mu bàyyi fa téere fiq yi bàyyi fa téere nazariyaat yi ñeen fukki fan mu topp boroomam ni dimbale ma nga tibb ci wa yajal lahu wa fu mu ko waxe nuuran ja nuuran ja mu ni ko tibb ci jox yaa ma dese dig daje beneen yoon incha allah xabaar yi bitim réew yegg si euh, nañu ci ñaareelu xaaju euh, xibaar yi euh, biti réew Alioune Badara Diop ana foo koy dooree. jërëjëf Ngoné Ndiaye ren xibaar bitim réew dañ koy dooreek réew bu mal yi wax ci ki nga xamante ni moo fi nekkoon njiitu pencum ndaw réew mi moom mi jamono juñ toll wan na ginnaaw parti bi nga xamante ni kii di Ibrahima Boubacar Keïta moo ko taxawaloon di RPM xibaar yi lu mel nag mu ngi ko fësal ni ni démb foofu ci réew bu Mali jamono juñ toll mën nañu wax ni ngoro gi la tas na ba tax na moom mi bëgg-bëgg mbokk na ci samp ab parti bu bees bees boo xamante ni moo ko nar a jiite foofu ci réew bu Mali. xabaar yi bitim réew. dem ba réew bu Mauritanie wax ci ki nga xamante ni moo fi nekkoon président bi di Mohamed Ould Abdel Aziz moom mi la nag ginnaaw ci benn tukki boo xamante ni daf koo naroon a amal nekk ni démb li ni mel nag mujjul sotti foofu ci aéroport bi nga xamante ni moo nekk ci Nouakchott ci la ko takk der yi tegee loxo gantaal li nga xamante ni mooy tukki boobale ginnaaw nag bi ñu ko teree moom mi di Mohamed Ould Abdel Aziz ngir kat mu a génn yenn ci yoo xamante ni ñu ko koy toppee ci wàllum yoon jamono juñ toll nag mën nañu wax ni tukkeem boobule mujj nañ ko gàntal. xabaar yi. bitim réew ba tey ci xibaar bitim réew ñu wax ci diggante ñaari réew yi di réew bu Israël ak réew bu Palestine ginnaaw ndaje bi nga xamante ni conseil de sécurité bu ONU amaloon na ko mu nekk ni démb coolo nag mu ngeen a jobbo yi ci diggante ñaari réew yi lée naam sax réew bu Chine ak réewu Émirats arabes unis yi ñoom ñi leen ñoo woote woon bi la ndaje ngir kat jéem a indiwaat jàmm ci diggante ñaari réew yi di réew bu Palestine ak réewu Israël wante mbir mi lee mujj ta antu si jamono ji nga xamante ni ñaari réew ba tey ligne rouge moo nekk seen diggante maanaam jàmm ji moom ngir mu delsi xamante ni lu jafe lay doon. xabaar yi bitim réew. dañuy jeexale xibaar bitim réew ak réew bu France wax ci ki nga xamante ni mooy président bi di Emmanuel Macron jamono toll na bëgg bëgg bokk na ci jéem a suqaliwaat li nga xamante ni mooy wàllum wér-gu-yaram gi ci communiqué bi nga xamante ni génn na. ci conseil des ministres bi nga xamante ni moo njëkk am ci atum 2023 foofu ci réew ba France lii di wàllum wér-gu-yaram gi moom Emmanuel Macron àdduna ci bu baax baax ba tax na bëgg-bëggam bëgg bokk na ci jéem a renforcer yenn ci hôpital yoo xamante ñu ngi nekk foofu ci réew ba France ngir askan bi mun a am paj mu ñoŋ wala tamit am wér gi yaram boo xamante ni bu mucc ayib lay doon jërëjëf Soxna Ngoné foofu lañ yem ci xibaar bitim réew yi cant ak ngërëm ñeel na la jaa ngeen jëf xabaaru tàggat yaram bàkk boobee kon euh, tàggat yaram gi euh, lay yëgle Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ngoné Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu mbokk auditeurs yi di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy dooree fii ci Kaolack ak ndoxteelu championnat sport travers si ñu gën koo xam ci corpo nag ki nga xam xamante ni moom mooy chargé bu communication nag di El Hadj Kane dellusiwaat na ci compétition bi ni mel waaye tamit euh, li tax ñu daal di koy nas El Hadj Kane ci micro rajo Alfayda. gannaaw nag bi ñu xoolee ne li nga xam mooy sport travers bi nag daanaka depuis juróomi at sax laay mën a wax nag boobu ba léegi mënuñu fexe ba organiser ay compétition muy football bi scrabble bi bi ñu xoolee loolu daal depuis daaw la ñu taxawalaat euh, sport traverse bi mais bi yoon nag ci beneen formule bu bees parce que bu njëkk ligue lañ daan am mais nag euh, bi yoon district lañ am nga xam ne département bi bu Kaolack rek lay concerné daaw nag juróom-benn équipe ñoo ci bokkoon te bi mu jeexee aussi seetlu nañ mairie moo représenté fukki équipe ak benn muy onze bu dee ci pôle A bi nag am nañ fi juróom benn établissement bu dee aussi ci pôle B bi am nañ fi juróomi établissement mais nag ni ñu mën daal mooy compétition ci wàllu football samedi tamit ci la am benn match aussi bu jotee diggante mairie lay doon en champion en titre moom ak poste ñoom ñooy jongante match bi léegi daal li ñu xool mooy ci wàllu corpo bi nag moom boo xoolee li tax ñu koy organiser mooy nit këru bu ñu waxtu jotee ba teg fukki simili ak juróom Villarreal mooy laale ak Real Madrid Mallorca di laale ak Valladolid loolu bu juróomi waxtu jotee ba teg fanweeri simili lay doon espagnol di laale ak Gérone bu juróom-ñetti waxtu jotee suba mi ngi war dox ci diggante Atlético Madrid bi jël ñeenteelu toogu bi ci classement ak ki nga xam ne moom mooy FC Barcelone bi jiitu ci classement bi fukkeelu bëccëg bekk juróom-ñaar Calcio italien Fiorentina mooy laaleeg bu ñaari waxtu jotee Juventus di laaleeg Udinese waxtu jotee Monza di laaleeg Inter Milan suba Sampdoria Gênes mooy laaleeg Naples Milan AC di laaleeg Roma Lazio bu Rome di laaleka Empoli 32e finale coupe de France Lyon tey di laaleka Metz bu ñaari waxtu jotee ba teg fanweeri simili Marseille di laaleka Hierge Le Puy di laaleka Nice Monaco di laaleka Rodez Bordeaux di laaleka Rennes Vire di laale ak Nantes ñetteelu wërngal FA Cup Tottenham di laaleka Portsmouth Liverpool di laaleka Wolverhampton ñu jeexalee ko ak lamb ginnaaw bi nga xamante ni nag médecin bi xool na Ama Baldé daal dinay wax ne nag kii di Ama Baldé dafa am loolu ñuy tuddee bombement discal L4 ak L5 ba tax na sax dina toog ñaar fukki fan ak benn gën gaa néew laataa muy doraat li nga xamante ni moom mooy entraînement it bu ñaar fukki fan ak benn jeexe dina dem ñu xoolaat ko defalaat ko beneen test IRM maanaam imagerie résonance magnétique moo ngoog Ngoné Ndiaye gannaaw ba la ñaanalee kendaa yuy jàmm li ma gënoon a fas ci xibaaru tàggat yaram yi jaa ngeen jëf li ci yéene kaay yéenekaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf euh, lii ci euh, yéenekaay yeeg El Hadji euh, Seydina lan bikum juróom ñaar fukk ak juróom ñetti taskatu xibaar journaliste fa ñoo dajaloo démb ca seen daluwaay ba xenu seeni mat la mer gàddu ak i sonde la ka làmp def li ñuy wax wee lépp ngir ñaawlu Pape Alé Niang mu ñu tëj kaso ba pare sàkk ñu bàyyi ko 24 heures yéen a kaay ñu ko xamal enquête yéen a kaay dëggal ko ne 78 journalistes yooyu ay africain la ñu Sénégal bu bitim réew toogaanu naqarlu Pape Alé gi ñu tëj kaso moom lañ doon amal ne lu ëpp tuur fañ a fa feebar te lañ ko tëjee du dëgg du yoon indépendant yéene kaay ne waa yeewi askan wi seen doxu ñaxtu bañ bëggoon a amal démb xam nga préfet fa leen koo xaayee ñu ne ko d'accord nañ fi mu toll nii nag ajjuma bii di ñëw fañ koy toxal banlieue bu ndakaaru lañ jëm amale fa toogaanu ñaxtu ba ndax préfet bi fa wax ne place de la nation fañ fay liggéey léegi nag danañ dem foo xam ne banlieue bu ndakaaru kenn du fa lay naan liggéey moo fa am su boobaa nag ñu amal su ñaxtu ci enquête yéene kaay waa yeewi askan wi ku jégi nee di ñëw kenn mënu leen a tere ñaxtu far force fara force doole mbaam ndax ñaxtu yoona leen laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne essence ak gasoil fi mu toll nii fa yokk ci réew mi nguur gi dëggal nañ ko bés bu yéene kaay ne yëfi nar naa métti de ci chauffeur si ak askan wi état bu fa yoral bor cent milliards ñiy jaay pétrole enquête yéene kaay ne dund gi fa cher askan wi di jooy noppeeguñu léegi essence ak gasoil fa yokk mu gën a métti ci ñoom li ko waral nag mooy nguur gi subvention bi mu doon def ci essence ba gasoil gi fa koo bàyyi vox populi na yokkute essence ak gasoil bii kay nar naa jur problème ak jafe-jafe ci wàllu dem beeg moom fa fëgg ca table ba mujj nag boo moytul mooy taxawal oto yi wala ñu yokk njëg yi rek lii yéen kaay ne nguur gi li mu yen woon fa ko xàttanatut moo tax mu yenneeku ko te mooy subvention bi <laughs> leer laneen lu leer ba yeggaat ca naan ñi ja mooy na nguurug Sénégal fas yéene naa dugal téeméeri milliards ngir askan wi bay di dundee ba doyal jaay yóbbu bitim réew njiitu jëwriñ Amadou Ba moo ko wax enquête yéen a kaay yeggee ñu ko le soleil yéen a kaay na ko fa nga koo wàññi ëpp na cent milliards cinq cent milliards fi léeg juróomi at moom la ñu war a dugal ci wàllu dund askan ñu ko bàyyee fii laas mel ni ku naan leen yéen daal faa foog na ngeen gént xam a wax ne fa ngeen a bëgg askan wi bay ceeb fii lu ñuy dundee si jamono jooju askan wi bay nañ gerte muy baykat yi te gerte googu nguur gi mënu koo jënd chinois yi est xam ngeen ne fi mu toll nii ñoom la baykat yi jaay seen gerte gi te loolu ci réew mi fañ ko war a lijjanti nag te dara warul ko lu mooy chinois yi lañ nangoo jëndee Sonacos du ko jëndee te baykat bi moom ku ko fay lu gën a bëri rek yow lay jaay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne Ousmane Sonko télé France ba ñuy wax France 24 ak RFI fañ koo dalal séq waxtaan waaye Ousmane Sonko wax yéen kaay yi di ko xamal wal fajiri yéen kaay ne Sonko kay fa wàcce RFI ak a yow seetal tubaab yi fa ñu ko njëkk a laaj na ko lu tax nangoo def test ADN ci sa diggante Adji Sarr mi la tuumal ne fa nga koo violé Ousmane Sonko na leen dossier bii du dossier ordinaire déedéet complot état la ba ca kaw nag léegi ñu la complot yoon wu nekk jaar nañ fa ngir taqal la ñooñu dinaa leen jox sama deret ñuy def ay test xalaatuma ko sax lu jëm ci ñetteelu mandat jiitiram Macky Sall su ko naree def yow lan ngay def boobaa Sonko mu ne leen man lu may def sénégalais yi ñoo koy lijjanti seen bopp waaye faa bëgg daal ne ci njiitu réew Macky Sall moom mi doon xeex ñetteelu mandat Abdoulaye Wade tey mu bëgg koo def gàcce la tamit ci Sénégal ñuy wax waxu ñetteelu mandat te yéen faa bëgg ngeen xam yéen tubaab yi ne gis ngeen Macky Sall mi njiitu réew mi sénégalais fañ koo wan ginnaaw minoritaire la ci réew mi maanaam ñi àndut ak moom ñoo ëpp fuuf ñi ànd ak moom te wote yi passé wane na ko xaw tuut ñu rey ko si du quotidien ne tubaab yi nag ci lañ ko waxee ne ko yow lu tax ngay attaqué France maxaate bés bu ñu nekkee président fay soppeeku yéen tubaab yi suñ jëflante gañaa gañaa lay nekk ndax maxaate gi fa doy l'observateur na ko waaye yow sonko fa ngaa wax waxet ndax yaa fi waxoon ne doo wax France 24 ak RFI te wax nga fa leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne ngir defar chantier yu mag ca dina bàyyi xalifa ba Cheikh Mahamadul Maahi Cheikh Ibrahima Niass jox na ndigal bàyyi Siis ngir mu jiite liggéey ba turbine yéen a kaay ñu ko xamal fa xaatim kayit signé ko jox ko ko na ko yow laa ci jiital na ko yaa jiite liggéey bi ndax doy nga ñu ndax fa ngaa def ñu gis GP yéen kaay na ko Baye Siis yemut fa fa toog ak xalifa ba wan leen projet chantier yi mag yi mu a tabax Medina Baye ci écran bi télé bi sëñ bi gisal ko boppam kontaan ca ñaanal ko yàlla yëf ya sotti li sotti pare te ba léegi kenn mën a koo tijji mooy marché bu Medina Baye ba tax jaara jaw responsable politique ca Kaolack ndangaan bokk bokk bokk gis-gis ma artu njiit réew Macky Sall na fexe ñu bu Medina Baye xaar bi fa yàgg commerçant yi fa ñoo sonn te lépp ak sanctionné askanu Kaolack sanctionné wuñ Macky Sall de déedéet Mouhamed Ndiaye Rahma ci boppam moom la askanu wan ginnaaw tax ñu mbuqi ko mbuqi yi métti te marché Medina bi buñ ko ubbiwut wote yi di ñëw Macky na ko wër na fay ñàkk Kaolack leer laneen lu leer ba yegg ca nan ñi ja mooy ne njiiti réew bu Mali Assimi fa baxal jéggal soldaaru Côte d'Ivoire yañ tegoon loxoon ci réewam ginnaaw bu ñu leen attee daan leen kaso terewut baxal na leen ñu dem ñibbi man ma dem ci fa tubaab bu jigéen bu fekk baax Sénégal nga xam ne fañ koo rey ci anam gu ñaaw ca Somone ñu njort na ñoo ko rey teg nañ leen loxo ñu teg loxo mooy benn waay koo fekk trois heures du matin ci kaw lal benn xale bu jigéen mineur mu ko yakkataan yëfu saay-saay bañ ko bettee jàpp ko na ko waa yow looy def nii mu faa tërë rek faa doon nelaw te faa foogoon ne faay gént yëfu yaa nga amee ca diwaanu Pikine hmm, waa ma ne jógee sa néeg xaaju guddi nga dox ba ci néeg xale bu jigéen yéeg ca kaw ba commencé naan yaa ngi def yëfu saay-saay ñu jàpp la nga naan faa doon nelaw faay gént <laughs> yow fa ngay fontu dara la dalul buñ la dugalee ca kaso ga xanaa gént gi dana jeex de euh, li ci euh, yéenikaay yi euh, leen bu baax a baax yéen ñi faxe woon ci wàllu euh, déglu gi euh, jaajëfal Serigne Moussa Kane ci xarale gi ak Mouhamadou Khalili euh, ci partie digitale bi waaye du ñu fàtte waa rédaction ak waa production ci njàppandal gi woy leen di ànd ak sunu ay programme waaye laata ma yëkkati jotaay bi ma fàttali waat la ca gënoon a fës li gënoon a fës ci xibaar yi bokkoon na ca nag jaare ko ci loxol xalif bu tedd bi ci Medina Baye moom nag Baye Ciss jot na décret ba mooy nommé le responsable chargé des grands travaux de na Baye lu ni mel nag ni ki démb lañu ko doon amal mu nekkoon itam ak buntu ci xalif bu tedd bi ngir nag mu daal di lancé waale projet yi nga xamee ni am na ko ci pays bi yaatal gi déggoon nañu ko ci biir xibaar yi association bi nga xamee ne moo takkee Kaolack waaye nekkee ci Amérique te ñu gën koo xam ci ACCA ñoom nag ñoo doon amal ñetti fanu consultation gratuite yoo xamee ne ni ki tey jii nag lay jeex loolee jubluwaay bi mooy nag jegeel askan wi paj mu ànd ak qualité waaye lépp nag mi ngi antu eh, ci ndimbal ak njàppandalu eh, municipalité bu Kaolack bi eh, déggoon nañ ci Alioune Badara Diop. ñi ki tey jii nag ci euh, samedi ji euh, daañu amal rek ca maison euh, d'arrêt et de correction bu Kaolack bi ab journée culturelle boo xamee ne ña ngi ko jagleel nag ñoo ñee di détenu ya loolee nag lay solo si mooy may leen ñu mën a dundalaat seen i xol ci wàllu xumbaay ak mbumbaay naka noonu itam kenn ku nekk ca ñoom daal di wane sak mënin ci métier ya nga xamee ne ña nga leen ko doon jàngal bokk na ca wàllu ñaw wàllu uude ba ci wàllu menuiserie loolee itam déggoon nañ ci reportage Diagne bi di lépp yéen ba mbokk yi tegoon nañ ci xabaar yi bi ci réew tàggat yaram ak li ci yéeni kaay yi mangook foofee kon la ñu yemandi ci jukki mi ñaanal nañu leen mucc ak mucculee jàmmi biir ak biti tawféex ak taysiir jàngeen jëfati le journal Ngoné Ndiaye Reine